Euh, na tabaski xëccaaleel sa micro bi tuuti. eh bàyyi. <laughs> may siis micro di. baal ko waaw wax <laughs> voilà. waa Pape Cheikh maa ngi lay ziar di ziar ñi nga xamante ni ñoo. <laughs> di ziar ñi nga xamante ni ñoo ñuy seetaan di leen baalu àkk nag si euh, tabaski bi yow daa mel nga ñëpp àkk da ngay stressé nit ñi leen di matin. ay waay lu tax ngay wax loolu ah non dama leen di wan di leen xamle di leen expliquer nu mu demee. waaye ah, laay waxal ñooñu laay peut-être ñooy tiit ak sàcc yi. Ah, ak ñiy def abus de confiance ak yooyu. waaw ak ñiy def abus de confiance ak yooyu waaye. parce que am sama benn xarit boo xamante ni quand tu parlais de bor la dernière fois dafa fay télé bi parce que dafa am ku mu ameel bor. bañ kooku comprendre. voilà. <laughs> ah nag ak yeewu leen moom comme ni ñu ko waxee ñëpp a yeewu léegi de kenn dofatul wallaay wallaay bon sama tabaski nag tabaski bu neex laa passé parce que xam nga sama rakk dañ ko doon tuddal jouru tabaski ndeysaan ba tuddeewu la ko sama papa lañ ko tuddee alhamdulilah bu la ko tuddee woon def erreur oh, heureusement <laughs> amagu ma turandoo yow laay xaar xanaa di ma tuddee benn soxna may man de sama géer yi ma bëgg a tuddee yëpp. ba sama doom di juddoo sama xarit yi nekk France ku ne woon naa la mais boy bi daf la nuru. te nuroowu leen fekk bëggoon naa ko ma yónnee rek. allo <laughs> waa mes fils non mais boy bi dafa nuroo ak yow mais comme yow sa copie la loolu boo ko waxee sa xarit day kontaan quoi donc euh, c' était du cent mille par ci deux cent mille par là. quatre cent mille par genre quatre millions. Ah ñu ñëw ku ci ñëw Sénégal ba gis xale bi. Hmm. danga may bëgg a dóor. gone gi n'est-ce pas donc comme ni ma la ko doon expliquer. donc c'était ngénte fête. non dañu dañu ñun dañu rey suñu xar. Uh-huh. daal di dugal si frigo bi. Uh-huh. dem si ngénte bi. reyaat xar. xëy la lendemain rek daal di laq defaat beneen tabaski. ah donc suñu tabaski ngeen def ngeen def ngénte bi ngeen def ngeen nañ def ngénte bi tudd. le lendemain nag ñu toog suñu kër def suñu ay ah, waaj ak affaire yooyu donc on a fêté sur deux jours. ah mais yaa ngi tey nii. ah oui merci. yaa ngi soo ci tabaski bi ah merci. yére bi nag ku ko defar. ah yëre bi euh, sama benn rakk bu baax bi ñuy wax Amina. lii mos naa la gis nga sol ko de. waaw ah, Pape Cheikh waa fi ñu daje woon. man fan laa. keroog si guddi foofee eh. <laughs> man man lu tax lu tax lu tax mu neex ma dafay tax ñu comprendre lu bëri lu ñu comprendre woon ah. des fois ah, dañuy gis ni yenn eh, amul importance alors que dafa am importance lu jëm ci droit ci wàllu koom et tout ça et pourtant tu avais donné rendez pour dans 15 jours. waaye gis nga yëf fi borom. yàlla ay décisions nga toog di ko xool mu ne pat. <laughs> xaw nga rek après def lu ko neex. wa tout à moom muy def lu ko neex moom tamit. moom parce que mooy yàlla. waaw wax nga amul papa amul ok. c'est vrai ah. dëggal li mu yëkkul <laughs> kenn kenn juru ko. oustaz waaraat. mun nañ koo jox émission diine. waaw yàlla moom. Mhm. yàlla mel noonu. yàlla moom moom rek la muy beneen oustaz. voilà voilà voilà voilà. amul dendandoo amul maas jurul kenn. kenn juru ko lu ko neex lay def. moom mooy décider ci yëpp ah mooy décider ci yëpp mais comment il fait pour moom la yàlla ci bu yàgg bi mu la ki créé portable rek mi ngi feeñal doole yàlla ki créé télé mi ngi feeñal doole yàlla. dëgg la y a des millions de personnes. yow de kenn télé yow yàlla wane na dooleem te boobu la <laughs> kenn. Ah. ku defar laax tamit euh, war yaa ngi yàlla. yaa ngi wane doole yàlla xel ba nga mën a boole ci ak buy. voilà ku <laughs> jox la pain de singe euh, ak euh, chocolat quand même. mu jox la ñebe jox l'aurait imaginé. ah ouais franchement. il faut léegi yaa gis cas bi def ay cinq personnes en conférence en même temps. ouais mhm. en temps réel. en temps réel bu ne maa leen gis yéen ñëpp. ku ci nekk leen en temps réel. waaye eh li muy gis yëpp. en temps të të të të cool. dafa am sama benn xarit lu mu taamu di wax ma lay siy laaj sa avis. waxal nee na ma yàlla mun na lépp. micro bi. bijou nangu micro bi dafa sax bijou bijou est en de dessiner sur le plateau. dafay wax chaque fois. Mhm. mu ne yàlla mën na lépp ba mu des ba mu des tolloo c'est-à-dire yemalewul. waaw yemalewul bi bii dafa di jaa bii mooy di ja. waaye am tolloowul. di tout am tolloowul kii dina am kii ñaar. yéen daal yàlla ngeen xëyee nii. tey ça arrive que que de tout dëgg la dara nuru. foo toog war nga mën a xalaat. wee. am tamit sax doole ji doole ji tolloowul. na mm. la kenn mënu ci dara. Mm. malgré des tentatives. léeg-léeg ma répété répété mais mënu ko ma jox Pape Cheikh ba tey aussi euh, c'est ça donc en tout cas ñu ñaanat ko rek comme ci suba ba tey ñu ngi koy ñaan pour hmm. mu ñuy may tout ce qu'on veut allez bu amee ku nekk téléphone ñu jël ko euh, avant de retrouver dans euh, ah, mu ngi foofu noonu di lakk di lakk yàpp bi ah, mu ngi préparer suñu ay côtelettes avant de parler ak suñu euh, suñu euh, suñu euh, suñu su suñu suñu taw bi ah sama taw bi mu ngi nii taxawa ah. alors Ndeye Malé ta fête comment ça s'est passé ça s'est très bien passé je l'ai passé en famille d'habitude dañuy dem Podor Fouta hmm. ren ñu Fouta on ah, l'a passé avec ma maman mais par contre la veille de la Tabaski il y a quelque chose boo xamante ne ça m'a marqué ah. c'est la première fois de ma vie ma gis ko au fait xam nga tout le temps d'habitude boo demee Tabaski tout le temps dañuy naan boo amulee xar mun nga rëy bëy boo amulee bëy mun ngaa rëy ginaar mu ngi lakk ci kaw yow jëlal lii ah, ah, lekk tagal ah, lakkal ba lakkal ba nañu won dog waaw lakkal lakkal ba loo lakk dëgg la aussi waaw mu ngi lakk laa waaw en temps réel nag tabaski alors juste euh, fi def si woon fitness di Fama ñu ngi ginnaaw mun ngeen dem ñibbi ah ba suba euh, voilà merci Fama jóg leen ngeen dem allez allez merci foie baa ngi ne foie baa ngi dem. parce que la yàpp am na fi ñu toog. c'est vrai que daal ñu fi toog dix minutes. Ah, franchement maas may ma ci ñu toog fii nii parce que d'habitude bu ñu defee fitness bi à sept heures pile balaa balaa balaa huit heures fekk nañu ñibbi mais tey gis nañ fi yàpp gis fi laax allez je vous sortez. voilà. allez am na ku nekk ci buntu pénitentiaire fee. kaay kaay ñibbi kaay. kaay si kër gi allez on quand même rentrer nous on travaille. kaay kaay kaay ñibbi kaay. xanaa fi amul sécurité. na génn plateau bi. voilà pousse ko ci buntu bi. voilà allez so so merci tiens. voilà non non tu passes plus. non on vous montre pas waaw ok merci. allez tu sors. non mais c'est abusé. <laughs> ah sors. <laughs> non mais. eh yow lii ñuy xaar ñu nekk seen kër yi. <laughs> Ah, yow eh, c'est abusé. non mais laax. ñaata xel bi ñibbi ak lakk. voilà merci allez rentrez ba vendredi eh, merci. <laughs> yow ñu ngi ñibbi prochain yow dàq la nañu dem. <laughs> on va manger en famille. yow dafa Cheikh mu baax mi borom teraanga je suis avec ma famille ce matin. voilà te la sama famille. ma famille ce matin parce que tey ndewenal la spécial juste que. Euh, ki ci gën a fuuy nag. ki nga xam ne dafa fuuy. xam nga famille daf ci am ñoo xamante ni dañuy fuuy. Ah. waaw fuuy gi nag dafa dal besel parce qu'on l'a appelé pour mu ñëw euh, Pape Samba Thiam moo ko woo. Euh, man moom duma ñëw Pape Samba Thiam woo. ah du ngeen ci wax ah. Bessél benn la mooy gérer émission bi nag kaa aussi. mais Bessél dafa yabaate. non daa ko baal ak. bu ak ay muuraayam. waaw tey nag. dañuy duggal ci jëw de Bessél dugg si di en direct fii <laughs> man yëfu Pape dama ci dugg. dafa bëri histoire ah. dama ko bëgg tooñ ba mu quitté këram pour ñëw ko ah. war naa mën a ñëw. non mais avec BSL jusqu'à la BSL mu ñëw est-ce que duñ ko neexal parce que tey c'était réunion de famille yeewu leen elle n'est pas venue c'est pas normal quoi malal tamit ñëw pourtant on l'a appelé alors ñoom ils sont en train de travailler actuellement à la radio c'est ah ça le drame mais bon on les retrouve ñoom lundi ak mardi mhm. euh, muy euh, Chérif Diop voilà euh, sama taaw moo taxaw Mado tu es en train d'expliquer voilà ba ma dagg la baal ma ak non amul solo waaw tey damay wax rek Pape doom may ma wax waaw waxal bon te t'es sûr xaar ma ma wax béy Eh, et suivant. <laughs> vas-y c'est dog yi ñuy wane tamit dinaa yéex a wax de. vas-y vas-y vas-y vas euh, waaw dégg sa doom donc tu vois dañuy naan xam nga d'habitude sax da ngay rey xar wala nga rey bëy wala donc man fi ma toogoon noonu. di jënd xar merci donc xaar ma jël sama gaar di hmm? laay maas yal na yàlla laf cat waaw Adja Lindoor maa ngi lay nuyu tay baas bi mënuma la koo may parce que sër bi du la wodd quand mais bon léegi sérieusement ma toog di waxaale xar ni may waxaale naan ay cent mille yooyu rek benn paa romb ma ak jabaram mu diri bëy ah, tabaski nag waaw mais mais xam nga da nga koy dégg mais xalaatuma woon ni dinañ ko dund xam nga noonu la mais dafa metti parce que boo sañoo ah? non ma gis ko ni mu koy diree te bëy bu tuuti la waaye si mi ngi may xool mais ruus na ma xool waaw sëgg ma gis jabaram mi ngi koy jàppale ni ñuy xëccee Euh, bëy bi sama yaram dafa daw parce que dama koy dégg tout le temps mais mosuma ko dund mm-hmm. te xam nga te boo sañoon tamit itam ki rey voilà mooy am am voilà exactly waaw vraiment ça m'a beaucoup marqué mais bon euh, sant daal mais sinon j'ai passé une très bonne fête de tabaski si xam naa lu ne mel. Ah, mais dafa daw yaram. waaw parce que boo sañoon yow xam nga yaa ngi sant yaa ngay rey xar. boo sañoon sa nawle bi tëj bi ngay dendal wala sa morom boobu mu rey loolu que ñëpp xar nañ ci xam. amaana wax nañ ci loolu yëpp war nga ko mën a rey ndax ku ci ah. nekk sa doole fa mu yem la. Mm-hmm. mais boo dee nit it dina la fukki junni. waaw mais xaaj ko bi. jar na ko dama amul sax mais bu ma amoon dañuy wax souvent di nga gis euh, ay nit dend kër. Mhm. yow yàlla may la teranga nga dend ak koo xamante ne euh, amu ko. Mhm. yow nga gàddu sa kuy bu bu 700000 francs mhm. teg ko euh, te yow nga ne yow yàlla nga ciy wut te yaa ngi dend ak koo xamante ne yow. ayul dëgg la te dérangé wu la yaa ngi sol sa mbubb bu rafet romb leen léegi kay macha allah xanaa yaa rey yaa <laughs> euh, soo bëggee ma wax ak Boubou Ndour <laughs> d'accord ok non c'est pour dire rek euh, nañu nañu bàyyi xel ci loolu. Euh, bisu bisu sarax la bisu dimbaliwaate la. Mm-hmm. ku ci yàlla may doole nga tollool fàttalikul ñi nekk sa ginnaaw ñi nga xam ne mënuñu ko boo mënee njëgu 1 million. Mm-hmm. mais xaaj xaajaat ko xool ñi nga xam ne seen doole yeggu fa. nga dimbali leen dafa am solo seen conseil yi. non mm-hmm. euh, ndax saa su ne gaa bu ma tabaskee. comme ren man daaw dama doon tabaskil di jëndal sama bopp mhm. ren sama boroom kër jëndal ma man ma jëndal sama yaay waaye amaana ni mhm. bu fekkee ni dama koy dogu léegi mhm. ndëgë ni déwén ñaan naa yàlla bu ma jëndalee it géy njooro ba si ba ci tegg bala ak baram bala danaa ci taftal keneen koo xamante ne ab miskin la barkeb Cheikhul Khadim kooku moom dogu naa ci te yàlla bu ko yàlla def lu baax tam du ah, du caagin xaar ba période ñëw ti tabaski rek ah, bien sûr bien ah, sûr mbaax mm. du titre foncier dëgg la kenn moomu ko wallaahi am nga ci waar mm-hmm. te ku ne balaa nga dem ci suuf mm-hmm. war nga cee bay sa waar dëgg la sekk voilà allez donc il faut rappeler que 10 la ñu jeexal à 9h43